sëriñ bi ne yàlla nañ ko yàlla defal amin ne yàlla nañ ko fekkee ay at yu bare amin ne xadara bii yàlla nañu ko yàlla nangul te nangul ñu nag yi nekk ci suñu ginnaaw yépp am na loo xam ni ku ko yàlla defal ah war nga sant yalla mbokk yi ñun ñepp war nañu sant yalla mba xam nga ni mbiru du ko mu neex rek dugg de mbiru yalla yalla lay xëcc dugal la ci mbiram ne am na benn xadis boo xam ni ne maam Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour soppoon na ko lool mu nekk ñaari version bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni man lam yuqdim tawan ala al abraar يقدم كره على الفجار موم دال كيب كو ديمول الار بي موسى رك ديغا ديم ديماس فرعون دغلا دان نا واخني ديغنت اسمان اك سوف دي دي تخاوي خاجفي تي كاو مبا تي سوف ci suuf mbaa ci kaw rek waaye diggante bi déedéet ku nekkul ci lii rek yaa nga ca la ca des nee kon bu ñu yàlla xiiree may ñu chance waxtu julli jot ñu julli ko ne seres ka rek ñu julli ndax baax na wala baaxul nag moom ak nañ ko defee noonu la am du noonu loolu moom loolu déedéet du ci ñun de nangu nañ ko nanguwuñ ko loolu du ñun ñun daal liñ ñu sant moom daal mooy fu waxtu julli jotee joxe ji ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sahaba yi dañ ko laaj saxaaba yi dañ ko laaj ni ko yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ana ban jëf la yàlla gën a ci jëf yi ana ban jëf la yàlla gën a bëgg ci jëf yi mu ni julli ci waxtu mu ni julli ci waxtu mu ni julli ca waxtoom ñu ko ak ban ñu ko ak ban mu ni julli ci waxtom ak ban ak ban mu ni julli ci waxtu wa ak ban mu ni birrul waalidayn baax jëmale ko ci say ñaari wayjur waa mbokk yi kon bu waxtu julli jotee nga gaawantu daw jëkkante ji julli waxtu fekk amoo benn ngant dara tënku la yàlla baaxe la ci mbaxam ak kartanam ndax nak amna ño xamni ni ña ngay noddu ñu tedd fa ñu tedd mba ñu tok fa ñu tok sax te duñu jog yalla xewale la bokko ca ña tok ba nga waxtu wa nga dal di daw jog jëkkante ji ak waxtu wa bala mu la rëcc nga julli ca waxtu wa yàlla nag may la chance nga bokk ci tariqa Cheikh Seydi Ahmed Tidiane waxtu wa jot nga am foo ko defee am mbooloo moo ko bokkal bàcc salaatal fatih sa istixfaar dugg ko dem ca salaatal fatih dem ci laa ilaha illa allah bàkk jawhara yàlla may la nga àggale ko waaye mbokk yi loolu sant yàlla la ku ko yàlla defal nga bokk ca groupe booba santal yàlla te ku bokkul ca groupe booba ñaanal ko yàlla déedéet bul dingat bu ko xarab bul ni tax moom bu ca wax yow daal bu ca wax dara yow daal comme yàlla may na la chance nga bokk ca santal yàlla rek la ca des nag ëllëg lay doon maam Seydil Xaaji Malik radiyallahu anhu dañ ko ni woon maam yëngul yëngul nag ñu dégg la mu ni jaru ko nañu bàyyi rek ba ëllëg te bàyyi fi jàngale bàyyi fi ne li ci des nag nañu bàyyi nag ba ëllëg sëriñ bi nekkoon tabaarakallaahu ne ñi ngi leen di ndokkeel ci xabara bi ak ci wazifa bi fa tabaarakallaahu wazifa tey bii neex na de xamoo ni mag ñi dañu daan bàyyi xel wazifa déedéet daawu rambax rambax baaxul ndax yàlla boo koy bàkk danga koy bàkk ndax koo xam ni waxal na boppam ni ni ngeen may ñaan wala ngeen may woo <clears throat> na ngeen woo ci sama tur yu rafet yi waaye kuy woo nag yàlla ci turam yu rafet yi danga koy rafetal kay waaye kii yuuxu fee kee xaaju fele كيف باك فلي كين دو خام لان لاي ندرو دو جوخ شوق شوق لاغا نيك واي وظيفه بو دال بو اندك دال تا يالا نك حضر بو دال تا يالا لول نك امنا سولو نك نانين كو باي خيل مبوكي فتبارك الله ñi ngi koy bàyyi xel nañu koy bàyyi xel yàlla na yàlla nangul ñu amin yàlla na yàlla nangul ñu ne maa ngi ànd ak sama ñaari doom seyd ahmedin sàll ki maamam mooy taawu maam cheikh seyd alxaaji malik di maam seyd ahmed si des ca guerre ba ca saloni mook maam sëñ Babacar si radiallahu anhu ñoo bokk ndey ak baay moom maam Ahmed si ñoom la seen baay jëkk a gis doot cee teg Cheikh El Hadj Mansour Cheikh El Hadj Abdoul Aziz ak Cheikh El Hadj Habib fa tabaarakallahu mu ñëwoon France ak ay yitte nag ak yum fi doon dox si deg rek ni amna programme fi mu wooma ni ma papa kat dama bëgg ñu wétali si la gungé la ñu bokk bës bi barakallah loolu nak lu reuy la fa tabarakallah loolu ciofel mënu ko passé mbaxit mënu ko passé mu dend ak rakam di suñu dom di doomu Seyd Cheikh Ahmed Tidiane si Mouhamadul Mansour suñu mag suñu xalifa baay suñu kilifa muy Cheikh Seyd Mouhamadul Moustapha mi ngi nii toog moom itam mu ni ma ren moom foo dugg rek ca Strasbourg ñu wettili la tabaarakallahu noonu la àndeeg rakkam soxna Faat si زهرة بشيخ سيد محمد الحبيب فتبارك الله موم سامي موم لما ينجكي تي سخنام ولبتكو تدكو دومم تاوم فتبارك الله من موسى مسرين وصل فاسي ميسا مسرين ne ñi ngi and ak suñu doom alhaj محمد gay nga xam ni moom itam suñu doom la suñu lépp la ak suñu doom cheikh bi sëriñ saam waaye ma doon ñaan rek ci biir jataay bi gannaaw bi ñu santee mag ñi ñu fi yàlla booleel dale ko ci président alxaaji bàcc saar ak mag ñi nga xam ni ñoo nekk ak moom fii te tey bu ñu demee ba njaboot gi mën a def lu mel nii dañoo ñëw fekk fi mag ñu mel ni ñoom ba alxaaji bàcc saar ñu jiite leen jiitu leen ci taxawal lu mel nii kon nag ñoom ñooñu jar nañoo njukkal gàcce nga laama ak seen waajur yu jigéen yi fi ne fa tabaarakallaahu ñu ngi leen di ziyaara di ziyaara nag njaboot gi déedéet ndaw ñi duma leen wax de nee moom du wax ndaw de su ngeen dégloo samay waxtaan yu bari dawa kontur batun ndaw ñi kay li gañi di def naan ñun ndaw ñi ne lolu nak mo tardé Sénégal Sénégal kat ñoo dem fenn ci développement ci diiné ci tariqa ci avancement ndax rek dañ ñoo nax tënkuñu ci baatu ay ndaw ngeen te kat foo fekk ñi koy wax am na ñaari jabar ak doom sax sikkim yor kër ne dama koy netali bis bu ne ca benn gàmm gu ma doon def ca Sénégal benn waay jóg rek di jël kàddu mu ne ah sëriñ bi dama bëggoon nga ñaanal ñu ñu ndaw ñi ndax nangam nangam ba mu yeggalee mané ko waaw diw yow ñaara soxna nga am mu man de am naa ñaar am nga njabot waw xamul lu koy waaw xamul lu ma xamagul loo koy wax mu yakamti, ni ma danga ma bëgg ñaanal ñettel mu yeen ko yow mi sa xelañ ci ñettel ponkal mu tol neew lak ñaari soxna bëgg ñettel yor ay doom taxaw ci digg tante bi naan ñun ndaw ñi ana mag ñi kon ñun paa kay nga waroon paa yi mag ñi nee gis nga Cheikh Seydi El Hadji amul ndaw ku responsable la am nee amul ndaw de ku responsable la am ah, yéen jàngeen ko Zeyd ibnu Xaarisa am na xare boo xam ni rasulullahi salaay salaam moom la joxoon drapeau ba keroog mag ñu bare xaw nañoo mer waaye ba résultat accès kenn waxatul dara lu tax mu jox ko ko responsable responsabilité moom daal kon nañu fexe ba nekk ñu responsable te bàyyi xel nag ñun ñooy ñan bàyyi xelit fan lañ ne ñun lan lañuy def fi ñu ne lan la ñuy wut fii ñu ne lan mooy suñu rôle fii ñu ne yooyu fokk mu bokk ci suñuy xalaat fa tabaarakallaahu di sant njaboot gi ñépp rek fu waay jóge rek fa tabaarakallaahu di leen andil nag nuyoo suñu kilifa xalif général de Tidiane suñu sëriñ sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour ànd ak ay rakam Cheikh El Hadj Malick si Maodo sëriñ Babacar Abdoul Aziz ak seeni rak ak njabootu maam Maodo yépp nag andil leen suñu nuyoo kilifa suñu sëriñ Seyyid Cheikh Ahmed Tidiane si Mouhamadul Mansour ak mbooleem xadara ba yépp fa tabaarakallaahu ti am mbégte dellu siwaat gisaat leen di wax alhamdulillah ndaxkat kat diggante bi boobaak léegi lu bare dox na fi lu bare it xew na fi yu bare jóge na fi itam yu bare bari am na fi nag nee ñu ñépp kon fii lañu toogoon tey ren ñu ngi fi toogaat yàlla déedéet ñàkk ko de am na ko yàlla mayaat ñu bu déwénee ñu nit ñu toogaat kenn bañ ko wuute wax leen amin xoolante nii gisante nii yàlla am na ko kay yàlla nañ ko yàlla defal mu mel na nag saam mi dafa am benn groupe boo xam ni dañ koo bëgg lool moom ñu ko bëgg sax bari nañ waaye dañuy sonn ci moom di jóge itali di jóge pari fu mu jëm ñu koy wéttali di ànd ak moom Babacar ak Mouhamad ak Lamine ak ah, ak ñu mel ni ñoom yàlla dogal. Muhammad mi ànd ak moom dafa ñëw tey ànd ak soxna Roqaya soxnaam ñëw pour wéttali si ñu comme niñ ko daan doxale ndax moom dafay jóge ba Paris di dem Italie di dem Espagne di ko comme rek ñuy mu ba nouvelle ko ak lim koy dab dab ak lim koy dab dab. feeñul ci moom ci moom. ñàkkul sago ñàkkul sago. deful dara. ànd ak sagoom ak dalam. ñu tàggee ko ñu tàggee ko. booy juróom bu góor. xam nga loolu nag tiis na. bi mu ñëwee ma wax ko. mu ni ma bala ma àgg. ñu denc ko. te fii ñu jëm ñaan rek lañ fiy sàkku nañ ko ñaanal àggale def lépp bu ñu paree ma jóoru fee jóge dem Dakar mbokk yi lii foor na waay waa ku def lu mel noonu nag foog ñu seede ko nekk naa ca Italie ñuy def xadara nii ca Novara bi ñuy xadara. bi ñuy xadara. benn sëtu Serigne Touba nga fa. benn ni ma dama la bëgg a wéttali si. Serigne Cheikhouna ca xadara ba. muy Serigne Serigne def fa daara joo xam. ni. gindi fa nit ñi di fa taxawu doomu aadama di fa taxawu doomu aadama yi. bi ñu toogee a bay bëgg tàmbali xadara bi. ci lañ ko tàggee way juróom bu góor. mu ni pat bés continuer ak ñun ñu xadara wadifa jàng alquran mom kat moo dirigé lépp ñaan ñaan nga alquran ja mo def xatmu ba ba agal ba ñu ñaan bay bëgg a mu ni ma sëriñ dama doon bañ dama doon bañ a jax sa jaxase jataay bi waaye kat wayjur wa nag laa bëggoon rek nga sàkkul ma ci mbooloo mi ñaan ndax dafa wàññeeku léegi ma ni ko kañ mu ni bi ñuy bëgg a tàmbali bi rek nga xam ni mënoon naa jóg ca saase rek daw téléphone ji ak gale ji la def ak di xool bëggoon nag mohammed mi ñu jàngal woy juróom defal ko dog faatiha salaatal faatiha fukki qul huwa allahu ak juróom te jeeka salaatal faatiha yéene ko ko ak ña dem ñépp ñu jiitu ñépp ak fu yàlla tudd ñu jàng ñaan gi faatiha salaatal faatiha fukki ixlaas ak juróom salaatal faatiha باري خاطبت ربي خطابا لا يليق بنا فاغفر لي عبد من الآثام حياري ورحمات الله كل الخلق قد وزير ومن فاجر ومؤمن وجدنا وفي كتابك ربي إنما صدقة تربي للفقراء من دون إنكار ورحمات الله للخلق قد ما مودنا من فقير إني فقير ومسكين ومنكسر ما احتاج غيرك في تيسير أوطاري إني فقير ومسكين أيوة أيوة منكسر أنت ولي يا في دنيا وضرتها توفني مسلما أوساط أبراري إني فقير ومسكين أيوة أيوة منكسر أحتاج غيرك غيرك بتغسير أو طارئ بلي يا ربي توبة كاملة واستر خطاياي يا ربي أي أسطاري بلي إلهي يا ربي توبة كاملة واستر خطاياي يا ربي أي أسطاري wasutur khapaya ya wasutur khapaya ya wasutur khapaya ya rabbi ayya asfari wasutur khapaya ya wasutur khapaya ya wasutur khapaya الصبر عن شهوة النفس ثم على مصائب ربنا في هذه الدار يا يا وسطر خطاياي قرقنا وسطر خطاياي يا رب الصبر في نعام لم أعصي عدتها والشكر يا ربي أعياني كإحصاري واستر حطايا آه. واستر حطايا ممنع واستر حطايا آه يا ربي برك مخصوصا بمن حصنت خالته ضمتنا من قصد أبراري وستر حطايا آه. وستر حطايا آه. وستر حطايا عمري إني أتيتك بالأدناس ملتبسا ولا يدنس بحر العفو أكداري وستر حكايا وستر حكايا وستر حكايا أصطاري ولا تكلني إلى أمارتي عوجا ولا شكاية أسقامي لأغياري آه، وستر خطايا وستر خطايا واو فطر يا ربي يا أستار أسطار لو لم تكن رحمة الرحمن قد سبقت لمت من هيبتي في طي أخطاري وستر حطاياي خطايا يا واذكر خطايا يا ربي يا صايع نفسي لويح يناقضني يوم الأولاق ذنوبا مثل أحجاري خطاياي وستر يا وستر خطاياي ربي أستر إن قلت يا أيها الإنسان عاقبنا فما أجيبك ذاك اليوم يا عاري وستر حطايا وستر حطايا ما مولانا وستر حطايا ربي هيا أستار فاسطرونا كما في ذي معائبنا يا الله يا ربي زعزعني عن النار فسترونا هاك كما عيبنا يا الله يا ربي زعزعني وأشياخي وشيعتنا أحبتي وذوي الإسلام يا باري ناك كما عيبنا يا الله يا ربي وافتح أزكى صلاة وتسليم على قمر من نور نيل ما نلنا من أنوار أزكى صلاة وتسليم واو واو على بأقماع العفاة ومن سبيلهم سلكوا ربي من أبراري والآل وصحبي وأقماع العفاة ومن سبيلهم سلكوا ربي من أبراري

بالغزوات والآيات موضنا كما جاءوا من وانا ببي بالبدور موضنا إلهي جازيا موضنا أم الخلفاء موضنا عدول حاكم هذا صدقنا موت على الله موت قد انتجوا ومن شر القريب موت على المصطفى مودنا مدحنا المصطفى أجل أن ليغفر للغفور ويوم القمترير مودنا عبوس شر وقفنا آل يمن إلهي يا إلهي دفلني إلهي توبة مودنا إلهي ربنا رني وأصلي والمشيحة والختين رنين وأحبابي وبالإحسان ربي رنين إلينا مع جميع المسلمين رنين وألف الضعفاء دفنكم من الصلوات في البلد أجل سلام مجنا أجل أننا سلام مجنا أي مننا سلام مجنا وجل أننا سلام مجنا فقنا بجاه جميع الأمم جزاء القاسم سلام مجنن ذلك موضنا يعم الآل موضنا وإن النظم آل نظمي ذو عوض شجوني هب متى والخاف ثم تابا خالصا يلا قبل الممات ربنا يا مؤمن مؤمن قدير ظاهر يا باطن يا خبير الحلل الختم بفعل وسكت العلاج واكل لنغفر ربي ووالدينا مغفرة تعم مسلمين عظيم يا حكيم بي صل وسلم على ظاهر باطن بالحق المبين صل وسلم على الهادي الامين يا ربنا صل وسلم على محمد وآله ما أعطي الغفران ما أتاه وحن مؤمن إلى فنجنا يا خالقا من كيدي وصل بالإيمان ودولة السلطان والجيان يا ربنا ونفحة وكل معضل عنيد يا ربنا ومجيء ولفحة وشر كل حاصدين وحاسد وكيد كل كائد ومفسد بالدين وال يا ربنا ومجيبين بالله وبالكتاب وبالنبي المصطفى أدعو بسم الله والسلام وآية الكرسي ذي وصورة الإخلاص ذي تمجيد وفاض من مات معاد ومن دعا بذي على اليقين يجب بما رام من مجيب يا مجيب يا مجيب وقد دعاء وجل نسألك التسليم بال وصبر ورضا لدى بالمصطفى الشاري كل الخلق فبإله منطقي أزكى صلاة الله و على الذي بشر بي والي وصحبي الغراء وتابعين ثم لو يا ربنا يا مالك قنا إلهي شربي أماتنا الله على دين النبي وحب شيخنا الإمام آمين آمين استجيب ولا تغيب سيدي أرجو الأمانة يوم لا أمانة إلى لمن آمنه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نذرق بالحق والهادي إلى صادق المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والخاتم لما سبق الحق بالحق والهادي إلى صادق المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم